mbokk internet yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu di koy jën ci la gën a fës ñu daal di koy door niki démb nag yemook ajjuma ci 15 ba ci guddi gi nag xeex yu métti nag doon am fii ci biir réew mi di Sénégal nag ci diggante opposition bi ak li nga xamante ni ñoo di takk der yi nag loole waral na nag ba am ñoo xamante ne bi jot nañ ci ñàkk seen bakkan nag ab étudiant foofee ca Saint-Louis waaye nag benn góor goo xamante ne bi foofee ca Dakar nag daal des ci ñàkk bakkanam ginnaaw lakk ramaseen boo xamante ne bi sànni nañ ko ko nag gënoon a yëngu bu baax a baax waaye mbooloo fu nekk nag doon fa génnee ndax xam sax takk der yi doon nañ leen mënal dara ngir bëri bëri gi nga xamante ne bii nag askan wi bëri woon nañ ko ngir génn ci mbeddi loolee daal moo gënoon a fës ni ki démb ci guddi ak ci bëccëg gi yëpp ci biir dakaar ak ci région yi nga xamante ne bi wër nañu ci biir Dakar lenn ci ñoom loole nag la ko waral nag bokk na ci kii nga xamante ne bi moo di président Macky Sall nag daal di fas yéene ngànk nguur gi nag ba fii ak mois de décembre loolee nag opposition bi daan ne ko nag du fi amee dañ koy yàbbi ci ni bàcc naa looloo taxoon nag ñu daal di wàcc ci mbedd yi fas yéene nag kii di Macky Sall daal di koy yàbbi ca sensé waaye ba léegi nag fas fa muy fas yéene woon a ngànk ba léegi di foofee la ngànk moom président Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ne bii nag élection yi ci mois de février bii la waroon na doon waaye nag mu daal di koy rendal ba mois de décembre ba la ñuy dëgmal loolee nag tax na ba opposition bi mer ba futt la ñu def ngir daal di fas yéene janloo ak ñi nga xamante ne bii moo di Macky Sall